jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di am mbégte nag di àndaan ak yéen ci solution info TV di leen gërëm rek ci seetaan bi mais aussi ten topp gi ngeen ñu topp di leen wax ni di leen woy di abone may aussi di emee di partager suñuy vidéo balaa ñuy tàmbali tey ji nag di masawu maa jigéen dafa nekk ci ngant waaw ah, moo tax tey ji moom ma ni damay beru rek def waxtaan wi ñu fa yéene ko tënk nag ci ñaar ñaar yoo xam ne dafa lëmbe réew mi bu ci leneen xajee ñu boole ko ci bu ci njëkk mooy Ousmane Sonko ak lettre ouverte bi mu bind jëmale ko communauté internationale bi di waa bitim réew lettre ouvert boobule mu bind moom Ousmane Sonko bind ko ci kàllaamay nasaraan di français bind ko ci anglais bind ko ci arab loolu nag bu juumul muy guléet ci internationalisation bi Ousmane Sonko taxaw ngir internationaliser komba maanaam génnee ko réew mi ndaxte nag lu waral loolu am ci jàngat mooy dafa sës ndaxte dafa jàppoon ni lépp mën nañ ko lijjantee ci réew mi waaye bu jàpp jàppee ay sorteem yu mujj di génnam yi mujj jëm ci réew mi da ngay déglu Ousmane ko nga xam ne amatul yaakaar ci ni nguurug Macky Sall mën nañ ko génnee ci goto gi mu ne beneen bi ci topp yaakaarul ni justice mën nañ ko ci génnee beneen bi ci topp yaakaarul ni sax bu mu juumul peut-être waxu ko mais ñun ci suñu jàngat mooy ñi ni jàppee ay régulateur social di kilifa yi diine yi mënuñu ko ci génnee moom mi jàpp nag ni dañ kaa tooñ ba tax mu ne wax ji nañ ko yóbbu ca bitim réew ndaxte nag président Macky sàll du société civile mais aussi du kilifa yi diine yi ñoo koy ñaan mu leen di may loolu nag kilifa yi diine yi yenn saa yi ñuy wax naan nan wax ci réew mi nan wax mais kan la ñuy waxal koo xam ni ñaan nañ ko ci Karim mu gàntu leen koo xam ni ñaan nañ ko ci xalifa sàll mu gàntu leen ñoo ñu tey jii ñaan Macky sàll ban njariñ la leen di jural ndaxte Macky sàll lu mu mësa a màtt jëmee ko ci opposant politique rek day dagg léegi nag bi ci raw mooy mbiri Ousmane Sonko. lu waral internationalisation bi yóbbu mbir yi ca bitim réew ba ñëpp xam ni kat digganteem ak kii di président Macky Sall fan ko yóbbu dafa sori te sës na ci xeex bi lu tax ñu ne sës na moom Sonko mooy ginnaaw ban ko dàqee ci liggéeyam ginnaaw ban ko fi jiiñee ay mbir ci mbiri aji Sarr ba boobaak tey jii yoon lettuñu firiwuñu mbiri Mame Mbaye bi ci mujj ci fitna yi ñuy teg Ousmane Sonko mooy résidence surveillée lañ ko yóbbu ci loo xam ne yoon waxu ko maanaam tëj ko ci këram mës na fi xëy di julli ji ñu ne ko doo julli ji tey dem na ba egg ci biir ci këram ci invitation boo xam ne ambassade des États-Unis dañ ko ko joxoon ñu tëj ko ci këram ci loo xam ne yoon diglewu ko nguur gi rek ñoo am seen ku yéene tëj ko ci këram yamuñu ci tëj ko ci këram mais dañ ko tëj ci réew mi ne du génn bitim réew maanaam su contrôle judiciaire depuis deux ans ci koo xam ne maire la ci koo xam ne leaderu parti la bu doon ni tey jii chef de l'opposition am na Sénégal moom mooy doon chef de l'opposition bu Sénégal li xew ci corniche bi nag bi weesu doon loo xam ne tamit lu xëttu xol la ndaxte waa ji demoon tribunal wuy ji ñu dax àtte bi mii ñibbi ñun ko jaaral ci tunnel bi mii jaar ci tunnel bi ay takk der wàccee ko toj oto am lu ne mënoon cee xew ñu ne ay nervi ñoo ko doon kar loolu lépp jëm ci benn jëmm yoo xam ne ginnaaw rebelle ginnaaw terroriste ginnaaw salafiste ginnaaw lii ak lee ginnaaw violeur maanaam lépp loo xam ne rek mën nañ ko tamee nit ci réew mi tamee nañ ko usman Sonko ba mu des Ousmane Sonko am na sax ku ne fi woon Ousmane Sonko am nooxoor la maanaam amul lépp loo xam ne xam ne dañ daan dégg ñu naan nit dégg na lu ne ci politique waaye li mu déggagul mooy diw day naaw waaye Ousmane Sonko sax bu ñu deful nànk diw dégg na ni sa dëmm nga parce que am na ñu naan ñiy dee ci réew mi moo leen di rey mooy rey doomu jàmbur yi loolu nag ñu koy teg ci benn jëmm. te waa ji koy teg ci réew mi di président Macky Sall ak nguuram moom kenn mënul ci moom dara déggalul kilifay diine déggalul yoon déggalul journaliste déggalul kenn Ousmane Sonko nag egg ci buur saay na léegi buur dee na léegi buur dee na sax weesu na ko waaye ñi ngi ci buur ci leneen comme Macky Sall nag dafay doon koo xam ne dafa mën gante jafee dëkkal maanaam la mu mënal waa bitim réew ci xajoo ci waxtaan ci yaatu newu ko ak waa réew mi Ousmane sonk ne lii nañ ko génni yóbbu ko ci bitim réew kalaame ngir ëllëg lépp lu xew ci réew mi ñu xam ne loxoy président Macky Sall ak nguuram génn ci parce que Ousmane Sonko dafa am benn image boo xam ne dañ ko ko collé ca bitim réew mooy waa ji nitu na la dafa bëgg a taal réew mi dafa contre France waa ji Total yi Auchan yi autoroute beeg tey jii bis bu jotee ci réew mi France sax duñ amati wàll ci réew mi loolu tax waxtaan wi mu mujj a def ci yéenekaayu tubaab yi ci mel ne France 24 wala RFI. Ousmane Sonko laaj yi nga ko doon laaj yëpp bi ci ëppoon solo ci tubaab yi mooy nan nga séq ak France lan mooy sa diggante ak France foofu mu leeral lu bari kon Ousmane Sonko nekkatul ci logique gu convaincre waa réew mi mais wax ak waa bitim réew waa communauté internationale ngir ñu wax ak kii di président Macky Sall te lettre Ousmane Sonko boobu boo koy jàngat da nga ciy jàng lu am solo mooy. yemul ci jëmmam moom parce que man dama jàpp ne Ousmane Sonko mi ngi ci prison parce que résidence surveillée ku mënta dem mënatoo dikk te nekk ab maire maire boo xam ne ci coopération décentralisée ngay dund ngir mën a dundal sa gox bii di Ziguinchor ñu ni la doo génn réew mi benn invitation mënatu ko dem teg ci lu toll ci téeméeri nit yoo xam ne ñi ngi ci réew mi ànd ak Ousmane Sonko wala jege Ousmane Sonko rek moo leen téye ci kaso bi ñu bari na ci ñoom ñoo xam ne yóbbu na leen instruction àttewuñu leen te bëgg-bëgg yi rek. nguurug président Macky Sall ci nasaxal son ko loolu euh, balaa may dikkaat ci Ousmane Sonko mooy Kopar Express ginnaaw Hannibal keneen ko fa nekkoon jàpp nañ ko lan la leen jiñ mooy dañuy financer ay fitna ci réew mi loolu nag lu tax mu dangereux ci nit ñoo ñu téye rawatina li jëm ci mbiri Kopar Express ñi jiñ na leen ay force espéciale ñi jiñ na leen ay rebelle ñii jiñ na leen ay terroriste lépp ñu door ko ci Ousmane Sonko mais loolu est que nguur gi nekkul ci logique bu demee ba ci wàllu yoon mbiri Mame Mbaye Niang ci daaneel Ousmane Sonko bu dee ci mbiri Adji Sarr munu ci daaneel Ousmane Sonko est-ce que mënuñu dem ba egg ci tas parti Pastef ndaxte am na benn jamono Pastef di waajal ab tournée di dajale xaalis ministre de l'intérieur génn ab week-end moom Antoine Diome week-end boobu mu génn. dem nan ba naan xaalis bi dugg ci Pastef na lay duggee dañ koy lijjanti dem bay sax di menacer ni parti bii di Pastef mën nañ egg ci ba tas ko est-ce que nekkul ni nag léegi mbir mi nekkatul pour gàllankoor Ousmane Sonko mais gàllankoor projet bi maanaam projet bi Pastef yor mooy anti système maanaam beneen Sénégal bu bees la woon daf fiy jugee ñu indi leneen léegi nag ñu ne mbir mi nekkatul jëmm ji parce que waa Pastef boo déggee tey ji seen wax lu ci bari nekkatul Ousmane Sonko. da ngay dégg ñu naan la projet bi maanaam ñoom mbir mi weesu na Ousmane Sonko te Ousmane Sonko tamit weesu na loolu parce que ginnaaw mbiri Adji Sarr danoo gis Yewwi Askan Wi taxaw mais danoo gis Pastef jóge ci parti Sénégal doon parti africain mooy le seul leader fii au Sénégal boo xam ne tey jii bu defee discours ci français def ko ci wolof ji nga discours français bi ñi ëpp ñi koy suivre ci àddina bi bitim réew la ñu dëkk rawatina doomu Afrique yi kon Ousmane Sonko ñu bari danoo jàpp ne mën na yee Afrique ci lu bari. ginnaaw ban ñàkkee ay ndaanaan yu ci mel ne Thomas Sankara ku ci mel ne kii di Cheikh Anta Diop ku ci mel ne keneen ak keneen ba ci ay euh, Mamadou Dia ak ñoom seen Ousmane Sonko yaakaar boobu ñu amoon ci ñooñ ñu bari dañoo jàpp ni yaakaar boobu usman Sonko mooy ki ko mën a dëggal kon yóbbu xeex bi bitim réew ngir ñoom Macron yi Macky Sall parce que Macky Sall pour man ay kilifaam ay Macron la ay Joe ay Joe Biden wala ay Erdogan ay ñoomin seen loxo Ousmane Sonko yamul rek ci wax ak tubaab bi mais wax nag anglais yi wax ak américains yi mais aussi wax ak araab yi te loolu dafa jar a wax ci lettre Ousmane Sonko bi mu am lu am solo ndaxte ab bind ñaar la rek fa ngay tàmbalee ak fa ngay daaneele loolu tax ñu naan way sax bu naree neex daaneel baa tax mooy ba muy tëj dafa ne Ousmane Sonko président parti Pastef mais teg ci candidat à l' élection présidentielle atum 2024 maanaam. ki ko bind candidat la moom dafa jàpp ne ab candidat la léegi nag dafa bëgg a firndeel ci kanami àddina bi yépp ni moom ab kandidaa la te képp ku ko tee doon candidat ndaxte la 16 dina lu fekki fan dinañ dem ci mbirim Mame Mbaye bu buñ fa jógee lan moo fay xew yàlla rek moom moo xam benn décision mooy am parce que nguur gi nag tey jii seen logique yëpp mooy gàllankoor Ousmane Sonko parce que nag mbiri Adji Sarr ak mbiri Mame Mbaye li ko gën a doon tappale ci àddina amul kon Ousmane Sonko maanaam day bëgg a doon magum xamoon naa ko bañ a doon magum waxoon naa ko looloo tax lettre bi mu bind nii am solo parce que danoo jàpp ni réew mi Macky Sall kenn mënatu ko lijjanti teg ci fas wu màmm la ko ne mandargaawu kii parti am fas la léegi nag fas woowu lan bëgg ñu téye ko soit dañ koy jatan wala boog ñu ngalaab ko ak lu ci mënti xew mais Ousmane Sonko artu na te lii mu bind man damay faral di wax nit ki lépp lu mu wax ci àddina mun na ko wax sànni mais nit lépp lu mu bind moom la gëm comme lettre Ousmane Sonko bi nan ko liir ak xel lire ko ak xol mais aussi tamit Sénégal doon réew moo xam ne dafa stratégique ci àddina teg ci tubaab bi Sénégal lan desees di nga ginnaaw lettre bi tey jii yéen kaay boo leen xëy yéen a ngi dégg ambassade bu états uni di wax ci élection bu Sénégal kon tontu la ci ni lettre Ousmane maanaam euh, nan dem élection Sénégal yi tànnal ki ñu war a tànn waaye te ki warta bokk bu mu bokk. mooy président Macky Sall di nga ku wax lii dangay wax la ca des léegi ki waroon a absenté di président Macky Sall moom warul bokk tey jii moom président Macky Sall boobu tey jii moom ne day bokk parce que mi ngi ci ay tournée mi ngi ci ay taf yëngal mi ngi ci ay tappale mi ngi ci ay taxawaalu mi ngi ci ay wëndeelu jamono jooju Ousmane seen président Macky Sall sañ dem fu ko neex takk der yi wër ko télé yi wër ko waaye waaye Ousmane Sonko ñu ko doo nemmee ko tuur Ousmane Sonko ñu ne ko doo génn sa kër. Ousmane Sonko ñu ni ko doo tukki Ousmane sonk ñu ni ko doo dem fii doo dem fee léegi ban àq la Macky Sall am ci réew mi te Ousmane Sonko amu ko Ousmane Sonko même bu am amlante ak yoon yoon daanagu ko kon tey tënk ko ci réew mi ne du dem du dikk loolu fan lañ ko teg loolu nekk loo tax Ousmane Sonko seedeel addina bi yëpp ne lii moo xew Sénégal parce que nag Ousmane Sonko tamit am na fu mu muus parce que lii mujj xew ci tunnel bi. dafa tax Ousmane Sonko tey jii exploité loolu parce que nag loolu bitim réew ñëpp ko naqarlu adduna bi yëpp ko naqarlu loolu tax nag li naan weddi gis bokk ci li muy dund ci réew mi loolu la mu gaaral ko waa adduna bi léegi nag waa bitim réew du ñëw du ñu suñu réew de maanaam ñii di patriotes yi ñii di sénégalais yi waxuma nan woteel Ousmane Sonko de ndax demagun élection te ci campagne yu ma la ko bokkuma Pastef waaye li daloon Mamadou Dia daloon fi Thomas sànkara dal Cheikh Anta Diop maanaam ay nit yoo xam ne Afrique da leen a yaakaar ci ni ñii mën nañ dog mbuumu njaam gi Mamadou ja ñu jël ko dugal ci kaso bi ginnaaw ba mu génnee dafa silmaxa mënatul réewam dara loolu nag dal Mamadou Dia dal keneen ak keneen warul dal Ousmane Sonko maanaam yaakaar bu nu am ci nit ni moom mi dinañu génnee ci lu ñu ne rek dina ñu yóbbu ci beneen système rek ay nit taxaw gàllankoor ko te loolu mooy bu nu amee leader dañ ko war a protéger ji nga Ousmane Sonko pour man génnam di wax lu bari wala fu mu ne fu ne mu dem fa wala muy xër-xërloo ak i takk der ay nitam sax dañ ko ko war a bañal maanaam jël combat bi porté ko mais aussi protéger ko par parce que un leader da nga koy protéger Ousmane ko ñeme na Ousmane Sonko am na fit Ousmane Sonko am na sañ-sañ loolu kenn weddeetu ko léegi nag li amoon ci ko tunnel bi am ci feneen ak feneen waratul am maanaam fépp fu muy dem. ay nitam dañ ko war a aar beneen bi ci topp mooy kaaraangeem ñu sàmm ko waaye tam sàmmal ko bakkanam sàmmal ko njabootam loolu nag taxawaay lay laaj ku dégg lawbe moo naxa neex a jàngali pël fi may waxee dafa laaj taxawaay mais jël Ousmane ko jébbal ko ay noonam teg ko ci ay loxoy noonam risque la parce que li xawoon ci tunnel bi korog ak otoom ba nu toj lu ne mënoon na fa xew kon loolu beneen yoor waratul am te loolu patriote yi ñoo ci war a taxaw que nag yabaate mënta wees Khalifa Sall mi ngi wër dëkk bi Bougane Gueye mi ngi wër dëkk bi Macky Sall mi ngi wër dëkk bi ban léegi usmaan Sonko léegi warul génn warul dox warul dem warul dikk maanaam injustice boobu tey jii moo tax bari na ci ñiy wax ci Ousmane Sonko ba ci ñun ñi ñiy wax mais buñ ko jàmmaloon féexal ko may ko jàmm may ko salaamam mais mun am duñ egg fi dem na ci ba képp koo xam ne yaa ngi wax pour di défendre Ousmane Sonko mais ñu jug di dal ci sa kaw tey jii Pape Pape Alé xalifa Khalifa Sall la gënoon a jege ci réew mi Pape Alé Niang Khalifa Sall la gënoon a jege ci réew mi pourtant mbiri xalifa am na ba jeex kenn xoxatalul Pape Alé kenn tëj ko ci kaso bi kenn woo ko fenn pourquoi mbiri Ousmane Sonko ñu ne Pape Alé waratu ci wax ba tënk ko tey jii lu tax bu ci ku mel ne Cheikh Bara Ndiaye waxee ñu teg ko lu ne kàddu gu ne ñu teg ko ci kawam képp ku ko défendre ñu tam la dem. parce que danoo jàpp ni Ousmane Sonko bu existé ñooñu di ko waxal la te ñooñu waxuñu parce que Ousmane Sonko moo tax mais dafa fekk ab nit bu nu teg injustice rek ñu koy défendre moo tax tey jii ñu tënk Pape Alé bëgg a yàq crédibilité benn Cheikh Bara loolu moo indi Walfadjri ñu tëj ko fi semaine parce que wane Ousmane Sonko ci keneen ak keneen maanaam loolu moo indi ba Macky Sall nar a xaaj réew mi Sénégal dafa xaaj sëriñ ci xaaj nan imaam yi xaaj nan sëriñu daara yi xaaj nan justice bi xaaj na police bi xaaj na gendarmerie bi xaaj na maanaam xaaj nañu réew mi te loolu lépp li ko indi ci li ñuy yàq ci réew mi yëpp di tëj ay entreprise jàmm ba ci Kopar Express ay avenir nit ñu ëppate ko ko jël ay nit ci kaso bi benn nit rek moo ko waral mooy Ousmane Sonko benn nit kase bañ benn nit mais xeex benn nit tax na ñu nar a yàq lépp ci réew mi te pourtant li ko gënoon yomb mooy ñu dem ci élection ku a bokk-bokk. sénégalais ku ñu wóolu tànn ko loolu moo gënoon a yomb parce que yoon wa ca la Macky Sall jaar ba falu ca la Abdoulaye Wade jaar ba falu ca la san keneen ak keneen ak keneen jaar ba falu lu tax yoon woowu ñu ne Ousmane Sonko waru ci jaar léegi dañ ko war a lool làmbe wala dañ ko war a gàllankoor wala dañ ko war a lii loolu nag moo tax langu Ousmane Sonko bari parce que langum noonu ku mer dam ca comme Macky Sall Ousmane Sonko day wër di campagne ay soppe Macky Sall ak gaayam wër di campagne ay noonu ñoom dañuy wër di campagne ay noonu looloo tax ñu bari noonu te nag noon bi dafa jàpp ni heure boo amee doole ci kawam nga jëm mais ni mu la a noonu lay def mais bu mayeen jàmm Ousmane Sonko jël mbir yi teg ko ci yoon wallahi azim réew mi bari na ci ñoo xam ne dañ doon wax ci Ousmane Sonko duñ ci waxati parce que injustice la ñuy xeex kon lettre bi Ousmane Sonko bind am na solo Ousmane Sonko nag lu tax mu sonn looloo mooy yóbbu ci mbiri Idrissa Seck mooy seul contre tous Ousmane Sonko. bi Abdoulaye Wade di génn ci réew mi Macky Sall di ko wutu dana woon projet wu libéraux yi cinquante ans la au pouvoir maanaam juróom fukki at yoo xam ne ñi war werd yi libéral tey taalibe Abdoulaye Wade ñoo koy jiite réew mi Idrissa Seck Karim Wade euh, kii di euh, Macky Sall ñoom ñëpp ci loolu lañ yaakaaroon mais sunu borom indi son ko loolu tey jii moo indi lu bari yàq ñoom ci leen doon teg ba ci Idrissa Seck mii parce que Idrissa Seck ñu bari ñu ngi naan. Idrissa Seck digganteem ak Macky Sall mais Idrissa Seck day fàttali Macky Sall ay diggeem mooy yaama ko diggoon yaa ma ko diggoon yaa ma ko diggoon dama la koy fàttali Idrissa Seck li muy jël kàddu bariwul waaye bi mu demee ca Thiès dafa wax ci mbiri mandat mu jóge foofu krog ci séminaire waa réew mi mu fàttaliwaat boppam waxti moom finalité ci àddina mooy li ko desee mooy doon njiitu réew njiitu réew boobu nag du loo xam ne Macky Sall moo koy def idi wala Abdoulaye waat di ko def parce que Abdoulaye waat bu mënoon a def nit njiitu réew Karim Wade lay fal nit kon projet boobu bëgg-bëggam la ak yéeneem mais sunu borom moo jël nit teg ko Idrissa Seck nit ku yàkkamti man dama jàpp ni nit ku yàkkamti la ci wàllu politique Idrissa Seck dafa yàgg wax ni moom mooy majo actionnaire majoritaire bu parti démocratique sénégalais maanaam bu doon ni ab cër la cër ba fu ëpp doole moom moo ko moom. dafa jàpp ne moom mooy ndono lu njëkk ci ab lay Wade moo tax bi ñu jugee ci atum 2000 bu ñu demee 2001 rek seetlu woon mii ñi àndoon ak Abdoulaye Wade yépp bokkoon ci opposition bi Idrissa Seck da leen a pousse ñëw toog mu ñëw ci 4-4-44 ñëw taxaw ci cees ba chantier wu Thiès juddu Idrissa Seck ak mbiri xaalis danoo yàgg maa ngi fàttaliku. benn baat bi ñu doon wax ci Idriss Seck ñu ne bis bi ab Abdoulaye bi Abdoulaye falo ñu dem palais bi mu gisee alal ji ci Paris milliards yu bari dafa ne ko nos soucis d'argent sont terminés maanaam ñun suñu jafe-jafey xaalis jeex na parce que amuñu woon xaalis parce que en 2000 mars bu la lañ doon def loolu moo ko indi ci mbiri chantier wu Thiès mais tamit bëgg a doonu Abdoulaye Wade te deewul loolu de en 2007 ginnaaw bi mu génnee kaso moom jàppoon na ne lépp ci ay dël ci ay waxtaan lay amee noonu la demee élection ñàkk ko. en 2012 Idi quatrième président mujjee ci cinquième opposant lan moo yóbbu Idrissa Seck ci daanu boobu ba tey jii biñ ñëwee ci élection 2019 bi sa Seck coalition bi mu amoon coalition Macky Sall sa ëpp ko woon doole mais lan moo waral sénégalais yi amu ñoon confiance ci sa Seck te sénégalais yi am nañu raison ci ñàkk wóolu woon sa Seck ngir mu falu fi mooy bi ñu. élection yi jeexee ma ni bi élection yi jeexee ci la ñëpp wax ci Idrissa Seck ne kat de lu tax deful recours ak ñoom seen ñu ne Macky Sall gagné na ñu dew quelque temps après ñu dégg ay rumeur ni moom da doon waxtaan ak kii di président Macky Sall ñu teg ci ay weer Idrissa Seck dem fekk kii di président Macky Sall kon Idrissa Seck njaaba njale googu mu nekk woon ci politique lépp lu mu yor moo ko xañ mais Idrissa Seck tamit digganteem ak président Macky Sall tey jii bu ñu demee ba naan bu soow war na jaaxal sénégalais yu bari lu tax ñu naan war na jaaxal sénégalais yu bari mooy en 2004 bi Idrissa Seck amee coow ci mbiri chantier wu Thiès mais rapport ba Macky Sall moo demoon ci corps diplomatique yi di ko fa liir pour jéebaane Idrissa Seck maa ngi fàttaliku bi Macky Sall liiree loolu ba pare kii di Idrissa Seck dafa bind benn lettre bu ma jumal ci kaso bi la nekkoon bind ko mun ko pire ennemi que celui qui fut ami. maanaam noon bi gën a bon mooy noon bu nekkoon sa xaritu démb Macky Sall la doon waxal kooku àdduna di dem di dem di dem di dem ba nga mën a ànd ak moom naa mburu sow tey jii ñu naan yéen ñaar yéen a ngi dil ngeen nga wutu ko en 2024 kooku moom mooy Idrissa Seck sa Seck ana Pape Diouf ana Omar Sarr ana Omar Gueye ana diw di diw ana Déthié Fall tey ji bu ñu doon lim du jeex maanaam il sekk bu doon ni ab garab bànqaas yi bari damm nañ ci moom wala reen ya dee na xob ya lax na tey ji daqaar du saf safaat Idrissa Seck warul mere Macky Sall warul mere Sonko warul mere kenn lépp lu mu ñàkk ci politique mooy ki ko xañ boppam tey ji nag jug na sénégalais yi nag foofu nag laa bëgg ñu yeewu parce que Idrissa Seck waruñu gën a yeewu mooy mooy nit koo xam ne heure bu bëggee nit ñépp noppi ci moom dañuy noppi ci moom kenn wax ci moom waaye heure bu bëggee nit ñépp wax ci moom dañuy wax ci moom kooku mooy Idrissa Seck ji nga parti réew mi bii nii Macky Sall bu doon pexeem jub na parti réew mi bu Idrissa Seck du am ndaxte bis bi biñ créé parti réew mi mais Macky moo fi taxawoon ne parti warul tudd réew mi réew mi benn la di Sénégal idi di ci bëre di ci bëre ba dem ci élection maa ngi fàttaliku parti réew mi bi ñu créé amuñu récépissé xam nga kan moo leen joxoon seen récépissé benn waa ji doon wax instant Sankaré loolu la sa Seck yenn saa yi bi wax di wax di wax di wax te tuddul instant Sankaré bu Thiès man damay ruus le professeur instant Sankaré te pourtant kooku tey ji bu parti réew taxawee kooku ci la ndaxte parti réew mi bi mu am récépissé moom moo jël partem récépissé partem jox Idrissa mais Idrissa Seck ko kenn te waa ji nag dañuy faral di wax naan bu dee est-ce que bu ne bu ñuy laaj nag mën na ay nitam wala mënu leen dañuy laaj ana ay nitu démbam nit balaa ngay waaye ak moom da ngay laaj ana ay nitu démbam fan la nga ko féete mais il sekk tey ji sànq tur yi ma tudd ak ñeneen ba ci Awa Gueye Kébé ñooñu ñëpp kenn gisatu leen ci wetu Idrissa Seck instant sànq rek Idrissa Seck tuddatu ko foofu kóllëre ak ngor fan la féete ci nit kon tey jii ñun Sénégal mën na am démb Idrissa Seck mënoon na doon président de la république démb mais aussi sens la ci Sénégal pour mu doonul président de la république Sénégal parce que bu ko doonoon na lay demee est-ce que ñu fi ne ñëpp sax nekkul ñoom ñoo tane Idrissa Seck parce que koo xam ne ci ruise ci naxaate ci teg ay mbir ci calcul ci njaaba njale ci loolu lay dox tubaab nag dafa ne ce qui se ressemble s'ensemble Idi Macky ñoo ànd parce que ñoo bokk lu ñu gëm mais malheureusement ne Senghor defoon ak Abdou Diouf mënatul ne mooy réew mi du ndono te Idriss Seck li li muy wax yëpp comprendre nañ lu tax Idriss Seck jeu bi mu amoon mooy yi da ko doon jël def ko premier ministre mais suñu borom dogalu ko pour yeneen raison yooyu du mu ci dugg parce que c'est privé mais beneen bi ci topp mooy Idrissa Seck mii tey jii nekk ak kii di président Macky Sall ñu bëri jàppoon na ni mun na nekk candidat en deux mille vingt-quatre mais Idriss Seck fi ko dese woon ci politique mën a du ko gañe mooy Thiès kon tey jii président Macky Sall yëkkati Benno Bokk Yaakaar di teg ci kaw loxo Idriss Seck mais xarul la mais beneen bi ci toog allié wu président Macky Sall yi xanaa ñoom alalu borom barke leen dañ leen jariñoo du jariñ bopp ana waa PS ana waa AFP ana keneen a keneen ba Idrissa Seck war a mën a doonu Benno Bokk Yaakaar te ba ñuy bay mbir mi di ko liggéey en 2012 ba tey jii fala i Idrissa nekkoon Idrissa Seck ko dal mooy alalu ko sàggan ku farlu moo koy mujjee en 2012 ba élection yi jeexee bu mën na am bu fi desoon Sonko du yàlla rek moo xam boo nee Idi na Sonko boo nee Idi na Sonko mais tey jii Sonko sa force mooy lan un seul lutteur à l'arène dans l'arène un seul lutteur dans l'arène benn mbër la ci arène bi jàkkaarloo kii di président Macky Sall parce que Idrissa Seck dafa déserté sax ki dem parce que opposition nag. dafa am benn waaye lu mu mës a wax noonu opposition dafa métti moo raw sukuraat opposition dafa métti moo raw sukuraat loolu tax nag toog ci opposition lu yàgg aussi dafa métti kon tey ji Idrissa sekk na assumer ànd gi muy ànd ak kii di président Macky Sall teg ci pexe yi tegoon yëpp suñu borom da kaa ndaxte bis bi Idrissa Seck di ñëw la la doon quatre-vingt-cinq pour cent la Macky Sall waxoon Idrissa Seck ne ne moom la bennoo di am ndaxte li mu am boo ko booleeg li Idrissa Seck am quatre-vingt-cinq pour cent la. yàlla dogal Idrissa sekk bi mu njëkkee génn di ànd ak Macky sàll lan la wax mooy damay ñëw ngir indi ay pexe ay solution ci réew mi waaye tan taxawu réew mi mooy Idrissa dafa mel ne bi mu ñëwee ba léegi ci la réew mi ëpp jafe-jafe ci la fi corona bi ñëw ci la fi jafe-jafe yu bari am fii ci réew di Sénégal kon tey ji Macky bu doon ni dafa woo Idrissa Seck rek ngir ñu régler problème bi mais dafa yokk ay problème léegi nag seen problème comme li mu waxoon mooy Ousmane Sonko. liñ jot a def yëpp liñ jot a teg yëpp jeu bi dafa faussé léegi jamono yi looloo tax nag ñu bëgg gàllankoor gàllankoor Idrissa Seck ngir ñoom seen projet cinquante ans libéraux yi au pouvoir am mais réew mi du lu ñuy donante sénégalais ñoom ñooy xool ku leen neex ñu tànn ko pour ñu mun fi teg système boo xam ne moo ñu yóbbu fi ñu jëm parce que nag système mu 63 ans ci ay naxante ci ay njaaba njale ci ay kàcci waaye ci lekk alalu réew mi waaye itam ci. par parloo ci réew mu amul justice amul dara système boobu pour dire la vérité dañ ko repousse teg fi leneen pour que ñu am ëllëg goo xam ne dina ëmb ay yaakaar yu bari kon tey jii mi sa Seck ku mu mënti doon noonu xam ne mbir mi sénégalais yi la heure bu jotee dinañ tànn ki ñu war a tànn mais ki ñi war a bokk nan bokk ki warta bokk waratoo bokk loolu mooy indi jàmm ci mi réew di Sénégal kon mu doon rek ay tënk yoo xam ne tey jii moom lañ doon def ah di gërëm ñëpp ah tey nag bu ma paree soin bu war na ma jox <laughs> saa njëgu war nañ ma jox euh, tàngal ma màcc ah tegalul ma sax ndox mu may naan mais noonu la euh, di jégalu nag ci kàddu yi di jégalu bu baax bu dee am na njuumte euh, ah xam na ñun nag dañuy wax suñu xalaat mais xam-xam moom beneen affaire la kon ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant di leen wax wéy leen abone ci solution info TV mais aussi tamit di partager mais aussi di aimer. waaw ndaxte Sénégal mooy lii beneen yoon bu maa jigéen ñooy ñu dikk ci yeneen kon di ñaanal ñëpp jàmm ba beneen yoon incha allah.